internet sans limite sn point comme on a l'habitude de le faire di dem seeti ñi nga xam ni dañu nekk seen milieu di ci liggéey loo xam ne c'est vraiment exceptionnel waxtaan ak ñoom daal di li nga xam ne moo nekk ci ñoom sur ce dem nañu ci ku ne mais tey dañu seeti une grande animatrice de la télé Futur Média ñu gënoon ko gën ko xam ci Eva Tra de son vrai nom Eva Tra moom la ñu fekk si tey fii nga xam ne moo di bërëbu liggéeyukaayam di Bamana Couture su ma su ma juumul Bamana Bamana Bamana Couture Bamana Style Bamana couture Bamana style. waaw bëggee eh, nga ni Bamana façon. donc ça dépendra ci ci nu mu appellation bi nu mu la neexee rek nga defee ko noonu. maa ngi lay nuyu Tonsa. maa ngi lay fay bu baax euh, Diop. Mm-hmm. Eh, di kontaan xam ne li nga bëggoon yaa ngi ca. waaw jeex na fa yem. Eh, eh, le meilleur reste à venir mi ngi ci yoon bi incha allah. alors vous l'avez si bien entendu mu ci waxam bu rafet macha allah donc itam dañuy avancer directement ci question yi nga xam ni euh, moom lañ ko war a poser yéen itam ngeen ci doon laaj. kan mooy Eva parce que dañu jékki-jékki gis ko télé donc la majeure partie des gens se posent la question kan la donc Eva su ma jëloon question yëpp rassemblé ko def ko benn qui est exactement waaw balaa loolu maa ngi lay tooñ mais faw dinaa nuyu mhm. euh, téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi toog euh, di ñu seetaan e di am saa su ne bànneex di gis peut-être ma personne ah à travers euh, ay émissions wala ay ITV yoo xam ne dinañ koy faral di def maa ngi leen di nuyu bu baax a baax et képp koo xam ne dafay topp aussi sans limite bokk ci ñoom maa ngi leen di nuyu voilà et kan mooy Eva kan mooy Eva waaw léegi say nit ki lu mu doon doon li mu doon mhm. soo ko ne kan mooy diw léegi saay mu xaw a def jéqi jàqa très bien mais dinaa ci répondre facilement mhm. parce que euh, Eva Tra euh, est une jeune dame mhm. hmm, màggataguma euh, une jeune dame boo xam ne <coughs> native de la de la Médina bu nekk di yëngu ci wàllu Euh, ci nekk ci média mhm. et puis nekk aussi ci million wu couture mhm. tu vois et balaa loolu sax Eva Tra une mère de famille ah kilifa am ay doom d'accord mm, ak euh, lépp loo xam ne daal dafa ànd ak jigéen Eva loolu la Euh, euh, je pense bien wax ci tamit am na lu mu xaw a brossé mu nekk ci média donc média boobu dañu toog à un moment donné ñu gis Eva la 2STV donc ñenn ñi naan kii fu mu jugee ñu gis ko ci émission yi surtout Toute Belle ak yeneen émission yi doon dawal la 2STV donc comment vous avez fait pour dugg ci biir télé boobu ak nan la demee exactement ah pour intégrer 2S. yow da ma delloo ba 2S. waaw dama la delloo ba <laughs> mais booy mais booy da nga sore da nga sore <laughs> mais mais 2S def dafa euh, defe naa ñu ngi def deux s ban année encore. Mm. la commencé du ay année. vers 2004 2000 bien avant je pense ah. bien avant ma gis ne. Euh, dafa ñëw apporter benn plus. Mhm. ci paysage euh, médiatique bi. e boobu temps fekk na ma nekkoon di def euh, sama formation en stylisme. Mhm. ma ni pourquoi ne pas allier les deux. ah nga def mode ak télé. loolu la ma ni war naa mën a def mode ak télé bi may dem à la télé. dama amoon benn programme benn synopsis pour les enfants. ma ni su ma demee danaa ko def parce que gis naa ne xale yi. boo demee ci dëkk tubaab yi da ngay gis ne xale yi dañu am ay programme programme yu baax yoo xam ne seen waa dëkk ñoo ko defar mhm. alors man ni su ma demee à la télé dinaa fexe indi benn euh, programme boo xam ne xale yi lay laal mais ma xoolaat ma gëstu ma ni attends mhm. maa ngi ci biir mode bi kon war naa mën a jël li may def euh, en matière de mode yóbbu ko ci télé bi bu ko defee ñu xam ne mode du foo rek mm-hmm. du def lay neex rek nga ni dama nekk dans la mode di foo di caaxaan déedéet mm-hmm. liggéey la comme liggéey beneen bu nit ki demee ci bureau mm-hmm. dem liggéey dem euh, voyager pour def benn euh, business am kon mode loolu la ma ni dafa jaadu ñu dem à la télé euh, à télé wane li nga xam ne mooy sunu liggéey yooyu yëpp nag yóbbu woon ma à télé mais surtout ci Euh, tamit ak soutien wu sama pap mi nga xam ne très tôt moom yi mu bëggoon ci man yëpp mujj ma ko def parce que bëggoon na ma jàng dem euh, nekk ma nekk juriste mujjee xëy na tribunal fale ca bërëbu bërëbu attekaay yeeg layookaay mais yàlla dogalu ko bëggoon na itam benn côté ma ma def euh, cinéma. Mhm. Euh, mujj ma def loolu yëpp. mode bi nag bi ma ko gisee ma nekk ci euh, mu encouragé ma lool mu encouragé ma. Mhm. télé bi tam kazalika. noonu laa duggee 2STV. mais est-ce que je peux résumer tout en disant que sa métier bi di stylisme moo la poussé ba nga def télé exactement. Euh, métier bi bokk na ci mhm. bokk na ci mais bi may dem télé saytu naa sama bopp xool sama bopp ne am naa lu ma war a yóbbu à la télé am na benn benn yëf boo xam ne bu ma demee à la wax dëgg yàlla dinaa ko fa mën a euh, def mm-hmm. ma daal dem à la parce que Euh, doon def nag ay show. gënoon na ma tax a jóg itam. def ay show à la télé ba léegi bàyyeeguma ko d'ailleurs. ah, ah, ah. ah yooyu li ma yóbbu woon daal à la télé. Mhm. def naa ci yoon boobu laa laa nekk ba tey. alors votre émission bi nga xam c'était une émission phare hein euh, elles sont toutes belles boo xam ni euh, ñëpp souvenir voilà tout le monde téléspectateurs yu bari dañu doon xaar heure bi jot ñu daal scotché ci devant 2STV xool ko nga daan def liggéey bu macha allah mais toog à un moment donné ñu jékki-jékki Eva lu waral loolu. Eva mm-hmm. euh, liggéey boo gis daf nga dangay dem ba benn moment d' ailleurs yaa ngi may fàttali émission bu ma soppoon. Mm-hmm. parce que émission la bu ma permettre. ma découvrir ma découvrir monde jigéen ñi. Mm-hmm. ah quand on dit elles sont toutes belles. dëgg la jigéen ñëpp rafet. quel que soit lu ñuy dund. Mm-hmm. quel que soit seen milieu social. Mm-hmm. Euh, jigéen ñëpp dañu am benn yëf en commun. déjà fibre maternelle bi. mais bëgg taar jigéen yëpp la. ku nekk au fin fond ci benn village. boo ko indee nga wax ko waxu taar dafa ci kontaan. ka nekk ci bureau bi nga wax ko waxu taar dafa ci kontaan. ministre beeg juge beeg ñëpp koo wax waxu taar. am na lu mu bëggal boppam kon muy émission bu ma marqué mhm. xamaloon ma monde jigéen yi bu baax a baax mhm. et ma jékki-jékki effectivement euh, jóge deux s balaa elles sont toutes belles sax daan naa def euh, nekkoon na ci femme africaine moderne jóge ci loolu doon def good morning le matin mhm. ci plateau boo xam ne tous les lundis matin dama doon recevoir euh, invité léeg nga def benn plateau spécial yooyu yëpp def naa ko à la 2S TV mais ànd boo gis rek dafay am jamono yàlla yemale ko foofu mm-hmm. ànd boo gis yàlla daf ko yemale ci moment bu mu ko neexee mm-hmm. ma toog ba benn moment sentir dem toppatoo sama biir kër mm-hmm. toppatoo sama jaboot e voilà et puis ma am ay doom yoo xam ne macha allah macha allah presque maganteewuñu lu bare ma ni naa dem toog toppatoo leen alors ma daal di dem nekk Eva maman un bon moment. voilà lool la. alors euh, les gens moo waraloon off bi. off bi mais parfois les gens se la question à savoir parce que ñu bëri itam ku nekk boo nga demee dañ daan indi seen propre euh, question seen propre dañuy poser seen bopp tontu seen bopp. alors les gens disaient que est-ce que nekkul ni Eva dafa amoon problème ak le PDG di El donc il est temps que vous apportiez des éclaircissements là-dessus. Euh, kon dañu dañu juum nit laa boo xam ni macha allah mm-hmm. yàlla defal na ma du ma kuy jote ak patron mm-hmm. man. yàlla defal na ma loolu macha allah. du ma koy joteeg patron ndax euh, dama gëm euh, hiérarchie. waxtaan dafay neex borom kër. Mhm. kooku moom sama kër ak sama bërëbu liggéeykaay ak loolu mooy sama sama vision. ay jote ak ay patron ba tax mu war a indi bàyyi liggéey. Mhm. je pense que bu nit di bàyyi liggéey dafay bàyyi liggéey ci manière bu gën a aisée. Mhm. nga toog xam ne xëy na li ngay def. sentiratuloo ci sa bopp nga daal di bàyyi mais du jotee ak euh, patron mhm. mooy waral d'ailleurs damay imaginer mhm. euh, macha allah na yàlla lafal ñu cat lan moo war a mun a boole nit ak patron ba mu gedd liggéeyam dem wala mu démissionné ay jafe-jafe àdduna la yuy am mais xam naa ne gënalul kenn man moom du loolu moo ma daloon donc mësuma jotee ak El Hadj mhm. on a gardé de très bon rapport waxtu bu ma neex dama koy dugg 2STV yàlla def na lool. Ah, ci ba tey avant ñuy génn 2STV parce que. maa ci maa ngi ci a vingt y' a quinze ans. damay damay du général au parti. Ah, waaw ba tey ba tey euh, euh, mais li la gën a marqué foofu. toujours am na mais boo xam naa ne émission toutes elles bokk na ci. Mhm. c' est bu ñu waxee émission toutes belles dañuy fàttaliku Eva ci mbedd mi. waaw Eva ak ak ak ko ko jox. bu baax bu <laughs> ma doon faj. Mhm. émission boobu xam nga pour lan. Mhm. kër yi léeg du yomb. mais boo boo demee moo tax liggéey mhm. na nga ko bëgg tout d'abord mhm. liggéey booy mënti dem mhm. na nga ko bëgg dentiste bi sax dafa war a sawar ci ubbi gémmiñu nit di ko xool dafa war a nekk plaisir ci moom kon daf lay faj dama daan génn ci mbedd mi dox tase kenn ni ma mel rek laa doon doxee de. Euh, romb nit tooñ ko kafre ça c'est moi. Mhm. noonu laa mel. génn dox tase kenn xamuloo ko xamula mhm. nga jël ko ngeen passer une journée. Mhm. def benn journée d'amitié. waxtaan en toute complicité. Euh, muy yëf bu ma bu ma marqué vraiment. mu am lu ci metti woon trop trop. Euh, waaw lu ci metti woon ku nekk lu ci metti woon da ngay jël nit gis ne kii sawarul. Mm-hmm. nga jël nit gis ne kii kontaanul. Mm-hmm. nga jël jigéen gis ne jigéen bi saan yaa ngi koy xool. Mm-hmm. yaa ngi ko bëgg yóbbu mu rafet. mais nga xam ne dafa am ay problème au fin fond d'elle. nga war ko ramener. war bëgg waxtaan ak moom. ci sa vie privée. su la ko mayulee ngay yoot di yoot di yoot. ba mu mun la dénk lu bare loolu yëpp dund naa ko ak sama ay ren du jour nga jël koo xam ne mhm. da nga ko jël xale la mu bugg la dénk li muy dund ak ay way wayjuram nga jël koo xam ne danga nga ko jël mais mi ngi naan bu subaa mhm. naka lay def ba rafetaatee nii mais li ma leen doon wax toujours bés bu nekk bésu déclic la mhm. saa bu nu yeewoo ci àdduna rek yàlla may nañu chance pour que ñu découvrir un monde euh, meilleur. ma ma ma gën a 2 ñu jékki-jékki gis Eva mu def ma comme euh, benn off ñu bëri gis ni mu ngi nekk ci comme vous l'avez si bien dit nekk avec la famille toppatoo njaboot bi mais ñu jékki-jékki gisaat na nga nekk demat ci beneen beneen support muy Télé Futurs Médias alors naka la dugg bi demee foofu itam avant loolu sa relation ak Déguène Chimère mi nga xam ni du ma ne moom nga remplacé waaye émission ba mu daan fa daan def yaa ko def sa relation ak moom. Euh, kooku kenn jigéen jooju kenn nu ko remplacer paix à son âme damay wax toujours ma ni nañ ko bàyyi mu nelaw tranquillement macha allah danu amoon ay rapport yu yu rafet yoo xam ne wax dëgg yàlla dëddu na mais duma ci am benn gàcce di wax ne dama amoon de bons rapport avec elle tabarakallah macha allah nit ku baax ku yàlla baaxal ku bëgg nit ku baax loolu on le dira jamais assez mhm. noonu la meloon ba nga xam ne ñu amoon ay ay points en commun mhm. bi ñu daan gisee du du wàllu télé la ñuy gisee mhm. doon daan gisee daje di waxtaan di toog di échanger bokk gis-gis bokk bëgg-bëgg macha allah loolu mooy woon sama rapport ak moom ba bi ma bàyyee liggéey bokk na ci ñi ma njëkk woo ne ma awa faaw nga ñëw liggéey ci télé bi ça moom dama ko fàtte donc juste bi nga arrêté à quelques instants mu wax ak yow ne la il est temps nag nga ñëw jege ma. dëgg la est que du moment boobu laaj la gis nag il est temps que nga ñëw mu mu dox lien bi yow ak Télé Futurs Médias c'est pas ça waaw moom li mu dox ci lu rafet dafa bare du nu ko xayma rek sax ci ci Eva rek mm-hmm. li mu dox ci lu bare mm-hmm. euh, euh, ci lu rafet dafa bare mm-hmm. et jaarale ko ci itam ci ña nga xam ne ñoo fa nekk ne moom dafa yombal yëf yi ñi fa nekkoon itam mënoon nañ ma bañ a accepter et loolu amul euh, yëf yi ri tax ma dem vraiment Euh, mu wax ma wax yu bare yu dal xel yu neex. Mhm. mais bi ma fay dem dama foogoon ni dafay ñëwaat macha allah. et que su ñëwee dañuy bokk toogaay. loolu mooy woon yaakaar bi. waaw xalaatu ma woon que damay dem pour remplacer ko. mais l'homme propose di dispose. exactement c'est ça qui s'est passé. Mm. ñu dem jékki-jékki nag ñu euh, yàlla def li gën yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana moom euh, Déguène Chimère nga daal di yor émission bi nag di ko piloté bokk ceeg ñaar ñaar kenn di di mami kenn ki di di ndoy Colibane seen réaction déjà trio bi nan nga koy dundee exactement avant ñuy ñëw ci réaction bi. bi mhm. trio bi dama koy dund tout tout mhm. naturellement. Mhm. mais li ma ci gën a neex mooy wuute gis-gis yi. Euh, wute gis-gis euh, Eva ak Mami. Mhm. wuute gis-gis Ndoye baan ak Mami. Mhm. et Eva ak Ndoye Bane euh, Ndoye Bane ak Eva. parce que jëluñu ñetti nit yu niroo rek ñu teg leen. dañu jël ñetti nit yoo xam ne ku ci nekk. Mhm. ak façon bu muy gisee àdduna. ak façon bu muy xalaatee. ñu boole leen autour d'un plateau. day mel ni ñu jëloon fukki nit wala ñaar fukki nit boole leen. loolu mooy def àdduna. ñaar fukki nit ak ñaar fukki jikko yu wuute loolu ci la résultat di nekk mhm. mais boo jëlee ñetti nit yu niroo mhm. nga teg leen autour d'un plateau kon lañ ci waaw lañ ci doon soxla duñ ko am mm. léeg-léeg ku mel ni ndoy baan day wax ba ci yàgg ma ñoppatik dompat kirik ni ko noppit euh, mu daal di ree xam na mm-hmm. suy wax dara xam na xam na luy nekk daf ma xam mm-hmm. xam luy nekk sama réaction tu vois Mamy Linguère en toute aisance day waxee moom tam xalaatam mm-hmm. macha allah muy xale bu xam adduna ku xam adduna la parce que yenn émission yi euh, bu la ko njàng mayul tam expérience u àdduna daf lay yóbbu ci nga war ci mën mën a bokk. et loolu moo nu boolee ñun ñëpp macha allah. surtout ma ñëw ci ci di def d'une manière individuelle ñëw ci Ndoye Bane toujours ay réaction les gens dañ koy jugé que c'est vrai il est dur parfois de ses propos yow miy bokk ak moom plateau lan ngay gis exactement bu Ndoye baan waxee loo xam ne da nga naan kawteef. waaw man kawteef pour wax kawteef rek mais dama nekk nit koo xam ne. Mhm. Euh, dama nangu ne Diop. ñun nu ñu nekkee autant de personnes mm-hmm. noonu la suñu suñu jikko yi wuute mm-hmm. il faut déjà ñu ñu xam loolu mm-hmm. tey Ndoye Bane tey boo demee man bu ma ko doon juger dama ko naan tu le meilleur dans ce que tu parce que dafa gëm lu muy def xam nit bul def au feeling de Diop mm-hmm. bul def au feeling de Bachir mm-hmm. mais defal selon mm-hmm. yow li nga ressentir te moom loolu lay def naturellement ni nga doon wane ka jarul na Eva eh, nii la mel tudd noonu la mel mm. keneen neneen la mel noonu la mel il faut que ku ci nekk accepter jikko moromam su ko defee ku ci nekk dina xam nu muy gérer moromam c'est important réaction au téléspectateur il y avait benn biñ ci un vieux bi la woon en direct je pense bien ça vous fait c'est normal aussi wax euh, je vais pas dire du n'importe quoi wax xalaatam euh, bi nga bi nga pare ba émission bi sa réaction naka la demee exactement si xam nga loolu pour ku ma xam pour ku xam Eva macha allah yàlla xam na ne ku wootee wax lu baax ak woote wax lu safaan mhm. moom laa yemale yàlla mooy sama seede ki woote tagg la mhm. ak woote wax leneen mhm. mais xalaatam la wax absolument tu vois maintenant yow mi nga xam ne yow la yàlla def nga toog ci kanamu plateau ngay def direct mënuloo benn yoon nga xalaat ne yow sa àdduna yëpp da ngay def directivité doo am lu la neex mais pas boobu moo romb rek mais amaan na leneen mi ngi may xaar loo xam ne du jour au lendemain mën na jékki-jékki rek tàpp mu jàll te bu boobaa itam Eva ba woon de moo fa nekk ba léegi waruma mun a man pour man booy def direct mhm. nga nekk euh, artiste nga nekk euh, euh, journaliste nga nekk homme de média mhm. lu la ci fekk da ngay xam ne ale yaawu direct la jaadu na mhm. nit ñi nag am na ñu droit gis dara ne jaaduwul lii bëgguma ko lii pour lan ñu def ko yooyu xolu ay soppe la ak xolu ñoo xam ne dañu am beneen gis-gis mais man préparé wu naa vraiment pour loolu que ñu woo ma bés wax ma loolu du problème ci man. alors euh, euh Eva toujours hein, parce qu'il nous reste quelque peu de questions euh, naka ngay juger maintenant animation et la présentation d'aujourd'hui ce euh, ce jugement naka lay demee exactement. animation ak ah, présentation tey waaw mm. il m'arrive juste nag wax dëgg yàlla de de de suivre la télé daal di wax rek ne. su ma doon journaliste di présenter journal nii lay solo duma solo nii mm-hmm. lii lay takk duma takk lii li tax mooy mm-hmm. Euh, bu bu nit di def par exemple journal. Mhm. xam nga journal télévisé dafa nekk lu lu sérieux lu professionnel. exactement ba nga mhm. xam ne. Mhm. kii présenté tey journal télévisé bokkul ak euh, vedette bi animatrice bi nga xam ne moom day animé. d'accord kii day joxe information. kii dafay yóbbu nit yi ci révélo leen. ak beneen waaw loolu la. loolu moom dinaa ciy faral di taxaw. di ne daal vraiment. à de des de nos aînés ñoom sunu ay mag sunu ay yaay ñoom Soxna Dieng ñoom euh, Soxna Elisabeth et ñi fi jàll yëpp damay wax daal léegi saay bu ma doon présenter danaa def ne ñoom wax dëgg yàlla ah ay ñoom Mignel Barro Sèye ay ñoom elle est plus Barro Sèye mhm. ay ñoom Mignel Barro ak euh, Mignel waaw ñooñu wax dëgg yàlla nit ñu ma marqué lañu mhm. la jeune génération aussi ñu ngi def seen ñu seen wareef bu baax a baax a baax mhm. je pense que euh, li ñuy yokk du bare li ñuy yokk du bare suñu mag yi ñoo ñuy dap rek di ñu jubanti di redresser def leen di bu leen def nii defee leen nii waxee leen nii loolu moo ci sama sama gis-gis parce que métier boo gis mhm. faw mu am ñu ci ñu ci jàpp faw mu am ñu ci jàpp gën a jubbanti daal du ne rek Eva dafa bëgg tey feeñ à la télé mhm. dama war a ñëw rek lu ma neex ma wax lu ma xalaat ma solo du noonu mhm. dafa war a am koo xam ni tey ci télé bu nekk day ñëw di di di xool yëf yi euh, ne lii euh, benn costumière walla kuy kuy tàggat nit ñi ci wàll boobu habillement comme euh, benn ki artistique mu ñëw wax wax ne lii mooy génn lii du génn couleur bii na jàll lii du dafa normal loolu dafa jaadu. d'accord dañ ci war a bàyyi xel. mën naa juger que ni parfois euh, ñenn ñi dañuy def parfois seen habillement ça fait défaut parfois li ñuy doxalee. est-ce que dinaa wax que ça fait seen bëgg-bëgg la déjà. Mhm. mais télé ak rajo mhm. dafa am lu mu laaj. absolument waaw ça fait pas défaut dañu sol lu leen neex. Mhm. mais télé ak rajo. Mhm. am na benn style bu mu laaj. tey booy def télé. ngay wax rajo mhm. kilifa yi ñu ngi lay déglu booy génn télé kilifa yi ñu ngi lay déglu di la gis kon loolu forcément dafa am ay mbir yu mu yu mu àndal yoo xam ne dañ ko war a doxalee d' accord alors euh, avant ñuy jeexal itam sa classe de guerre yi nga xam ne yéen a nekkaloon 2STV maintenant ñu retrouver à la TFM li ci mel ni Cap Thiam Pape Cheikh Diallo surtout naka ngay surtout surtout Pape Cheikh. parfois mu lay tekki ne naka ngay. Papa Cheikh waaw Papa Cheikh waaw. boo jógee ne ko Papa voilà donc seen seen complicité yéen itam su nan nga koy xoolee moom Pape Cheikh buy def émission parfois wala bu nekkee à vos côtés euh, dundam bien que les téléspectateurs dañ ko apprécier mais yéen ñi nga xam ne yàgg ngeen toujours. waaw moom dama koy tooñ saa su ne bu ñuy waxtaan ma ni ko man da ngay sama rakk di sama soppe ba dama la bàyyalee sama doom. Ah. kooku moom. suñu rapport la suñu lien la man ak moom. Mm-hmm. ak yeneen ak yeneen yoo xam ne du jar wax ci télé jar ko. li ñuy wax toujours lu ci xool yee gën li ci xef yi. Mm-hmm. kooku dafay sama rakki bopp ba pare yàlla def na loolu. dara du ko dindi moom bu ma woowul kenn moom Pape Cheikh mun naa ko woo. ñu waxtaan échanger lu yàgg ma raccroché sama téléphone. ngay am ci moom boo xam ne saa yoo <laughs> bi may am ci moom dama dama accouché. Mm-hmm. Euh, sama deuxième euh, garçon. alors euh, Bassirou juddu ki ma naan dama ko ko bàyyile mais Pape Cheikh ñëw seet si ma clinique Pasteur ca escalier ya naan Pape Cheikh ñëw na di clinique bi ñëpp génn di seetaan Pape Cheikh Pape Cheikh ànd ak waa yuuxu clinique man Pape Cheikh kii bàyyile naa la <laughs> et voilà ak euh, yeneen ak yeneen yoo mhm. maa ngi koy déglu mu naan allo waaw on donne pas la parole à Evatra elle est ne la elle est malienne ak yooyu yëpp daal macha allah macha allah. Mm. voilà voilà. d'accord est-ce que comptez maintenant pour arrêter la télé. comptez maintenant pour arrêter la télé yaa ngi may laaj ci waxu keps tudd nga keps. Mm-hmm. nit la koo xam ni itam. Mm-hmm. sama sama. collègue la woon sama collègue la tey mhm. rapport yi ñu amoon moom la ñu àggali à la 2STV mhm. muy nit ku baax mhm. simplement e li ma dund à la à la 2S bi ma ñëwee TFM continuité la parce que ñu baax laa fa bàyyi ñu baax laa fekk si fii avec un big boss qui est magnifique e est-ce que Eva xalaat na arrêter télé bien même sous peu de temps pourquoi pas <laughs> maanaam mën na xëy na arrêté na mën na xëy na arrêté na voilà. non mm. euh, du ma def loolu parce que. parce que ñu mel ni ñu defoon bële defaat ñu ko. nga waxi Pape <laughs> nee na ma. Uh-huh. bés daf ma ne moom ak ba jamono bi may naan damay wax ak dëggeen. Uh-huh. awa ñëwal liggéey sama mais je damay bañ nga xëy ne bon tu vois te du noonu parce que. Uh-huh. nit moomul boppam. absolument dama doon liggéey ca benn télé xëy suba teel bàyyi. Euh, fii duma ma defee noonu. Mhm. maa ngi ñaan yàlla liggéey bi gën a dox. parce que parce que waaw waaw waaw man du ma la faat <laughs> <laughs> dëgg non def loolu. Ah, parce nit ñi dañ lay xaar mhm. yaakaar la. Mhm. ak bu dul dara da nga nekk ci mission boo xam ne ndénkaane la rek macha allah. ñuy ñaan yàlla àggali ko jàmm ak salaam. Euh, du noonu boo amee ay soppee mhm. booy dem da ngay jël temps bu la ko yàlla mayee nga wax leen au revoir mhm. mais nag demaguma maa ngi fii di ñaan yàlla sax mhm. am yeneen yoo xam ne ci wàllu média dinaa ci dinaa ci bokk tu dinaa ci dugg tuuti pour gën a rek mën a waxtaan ak ñama war a mën a waxtaanal macha allah ñi nga xam ne dañ la sopp di la déglu te boo waxee macha allah sa wax am lu mu leen def mhm. ah dañuy ñaan yàlla yàgg fi di leen gunge c'est important c'est important comment vous alliez métier bi nga xam ne moo di stylisme couture boole ci animation bi et la présentation naka ngay allier liggéey bi ni mel pour finir ah? euh, avant dernière question très bien bokk na bokkul mhm. bokk na parce que dinga nga recevoir ay nit déglu leen ñu wax la seen bëgg-bëgg fële itam soo demee di nga déglu ay nit ñu wax la seen bëgg-bëgg fii xëy na ci wàllu mode mais dafay nekk mode plus parce que tey ñawkat boo dem tey Sénégal dina la wax bu ñawee ba pare am na leneen lu ci ciy teg échange bi nga xam ne nit ñi ñu ngi koy bokk ak yow ngeen di waxtaan di partager ay idéologie yi ngeen bokk euh, loolu beneen yëf la kon aussi à la télé euh, nga demaat déglu leen Euh, téléspectateur woote. mujj bi ba ay lien tissé wu seen diggante. kooku beneen yëf la. may wax ne ñaari bokk nañu. mais bokkuñu parce que fii dafa laaj may réfléchir di dessiner. li nga gis ci atelier bi yëpp man maa koy dessiner sama bopp tailleur yi ñu ngi may dégg. amul modèle bu fiy génn te du maa ko dessiner. je dessine je donne tout. et nga war a topp liggéey boobu. Mhm. war a xool finition yi parce que ñaw. finition la laaj liggéey boo gis sax finition ba daf cay am solo tey ki bind ba pare mhm. balaa ñu koy corriger manuscrit am dañu koy xool kon finition la laaj waxkat bi bu waxee ba pare mi ngi bàyyi mi ngi déglu mhm. est-ce que li mu waxoon ni mu ko daanale jaadu na kon du du lu yomb mhm. mais maa ngi ñaan yàlla yàlla gën ko yombal vraiment gën ko yombal jafe na jafewul jafe na Euh, ci boo organisé wule mhm. jafewul ci boo amee sa feuille de route nga xam mhm. fa nga jëm fa ngay jaar waaw méthode et organisation man dama ko gëm kon loo gis finition da ci am njëriñ ñu ni tamit on est arrivé au terme de notre émission mais juste euh, dernière question voilà donc euh, bi nga toogee jékki-jékki nouvelle que Adja Degen Chimère elle a rendu l'âme naka la la def exactement naka la Eva réagissé ci ci moment boobu noonu exactement pour ñu tëjee émission bi ak sax ah non xaaruma ko woon kenn ci ñun xaaru ko woon mais dama ci jëlee njàngat bu rëy avant euh, man dama ko yëg euh, dama ko teel a yëg macha allah dama ko teel a yëg tu vois euh, dugg ci détails yi du woon lu ñu doon xaar mhm. mais moom daf fi bàyyi leçon mhm. leçon bi mooy booy gis nit ki sopp ko mhm. booy gis nit ki waxal ko lu baax mm-hmm. booy gis nit ki saafonteel ak moom mm-hmm. parce que àdduna saxul mm-hmm. boo amee jot pour wax Eva bëgg naa la wax ko bëgg naa la boo ko naree wax bëgguma la denc ko jaru ko njàngale bu mag la fi bàyyi ne àdduna du dara du dara gisal nit ki bëgg ka balaay leen nay am loolu mooy njàngale bi nga xam ne bàyyil nañu ko solidarité partage ak yeneen ak yeneen mais wan nañu ko àdduna du dara mm-hmm. rafet dem ñaaw dem mm-hmm. am dem ñàkk dem mm-hmm. feesal armoire dem bañ ko feesal di nga dem na demin bi rafet te dal te sedd àdduna amul solo. di bàyyi la nga tàggatoo ak les internautes de sans limites sn point com. alors yi yëpp euh, Eva Tra mi ngi leen di tàggu di leen jox waa rendez-vous dans Wareef. Euh, di leen bëgg di leen sopp. du ñàkk ci internet yi am na ñoo xam ne ñu ngi seetaan ñu ngi am tas problème ci seen biir xel ñuy ñaan yàlla yàlla saafaral loolu ñii seen xol neexul ñii jëkkër yee leen tooñ ñii jabar yee leen tooñ ñii maga leen tooñ ñii rakka leen tooñ dañ leen di wax rek ngeen mu muñalante parce que àdduna du dara amul benn solo ñi nga xam ne nag ñoo ñu jiite moo xam bërëb bu mu munti doon ba ci président de la république ñu yombalal ko rek ku la jiite rek yombalal ko liggéeyam boo ko yombalee liggéeyam li ci des dana dox macha allah ci biir kër itam ñu apprendre à ñu ñuy balante ñuy balante ak ñuy supportante bu ñu ko defee lépp dafay rafet macha allah tey ñaan yàlla mu defal ñu tawféex defal ñu jàmm xiir ñu ci boppam musal ñu ci lu ñu yàqal te sa bu ñu xëyee muy góor di jigéen ñu ñëpp yàlla may ñu lu ñu def suñu poche te ñu yàgg fi di rafet dans la gaieté le bonheur l'amour l'harmonie dans tout ce qu'il y a de magnifique. d'accord merci beaucoup grande sœur. merci beaucoup mon petit frère. merci beaucoup très bien. internaute sans limite sn.com c'était votre émission 15 minutes sans limite la présentatrice de la Télé itam ñu ñëw ak yéen ci yeneen émission ak yeneen personne merci beaucoup d'ici là portez-vous bien abonnez-vous c'est votre émission jaa ngeen jëf